combat bi loo ci wax. jërëjëf Hadj Bekkay dañuy nuyu ñëpp di jégalu tuuti ci retard bi ndax am beneen liggéey bu ñu nekkoon euh, xam nga euh, Alioune Sall bu ñu ko dëkkaloo Guédiawaye rek dañuy jiw. waaw ndax il est de l'association des maires du Sénégal. kon ci ndombo bi nga xam ne moom la ko yàlla def ci àdduna moo tax taxawaay bi mu taxaw ak wax bi mu wax noonu rek la mën a taxawee noonu rek la mën a waxee parce que ñoom ñëpp euh, ay rakkam lañu ay frère euh, mais c'est un combat bu nga xam ne HBK euh, jarul sax def publicité bu rëy wala boobu jarul sax def décortiqué bu rëy mm. parce que ñoom ñaar dafa am fu ñu jógee ba extra ba làmb boole leen. ce ne sont pas des leaders qui sont capables d'expliquer loolu. ils ont fait leur preuve dans la République. ils ont atteint le sommet de la hiérarchie. te tey am na fu ñu bëgg a euh, fu ñu bëgg a fu ñu bëgg a egg. ils sont tous les deux de potentiels rois des Sénégal. te boo nekkee potentiel roi des Sénégal am tàkku sànq mel ni dafa am lu muy laaj. li ñu leen laaj moom la ñuy xaar ci ñoom ñaar parce que dafa am lu nga xam ne moom la ñëpp bàqe ñaar yooyu muy ñoom ñaar dañu bari lu ñuy calculer ci la tey bi yaboo nga ne booy ñoom et ñoom tacticien le tacticien met en place sa stratégie regarde la stratégie de l'adversaire mais des pions di dàndee loo jug mu dànd balaa ngay xam mu dànd la nga egg seen il est très intelligent dans ce Mais il a affaire à un mathématicien. Le mathématicien ne se trompe rarement. En mathématiques, il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas d'apogée, il n'y a pas de justice. waaw xam nga am na la ñuy wax. waaw waaw waaw waaw waaw dañuy dañuy dañuy moo tax may wax ak waa àdduna ni soog a wax ak waa moo tax xam nga dem la li ñuy xaar ci ñoom mooy tey am safar yow combat bi dina naan mais dafa war a tànn dafa war a tànn pour la bonne et simple raison que kii dañu le puncheur du mois mais léegi puncheur tuuti rek day bëri dafa mel ni puncheur te ci combat bi war a mooy un fin stratège un grand boxeur. punch et la boxe dafa am tuuti différence. un boxeur et un puncheur bokkuñu ay qualité. le boxeur frappe avec précision. le boxeur dafa am fi muy dóor di fa dóor mooy dóor. tali ko xool tali ko mooy ki nga xam ne benn pour pañe bu loo ko dee pàcc say bopp formé ci gaz kon daa combat bu war a neex la. dafa war a am explosivité ci ñoom ñaar parce que xaar. dañ leen wax dañuy xaar dañuy calculer mais ci combat bi damaa bëgg di dox tàgge. nañu promettre loolu askan bi parce que am nañu qualité yi nga ne bu ñu ko bëree benn bi. c' est vrai te boo toll fu nga xam ne dafa am lu ñu soxla pour que le feu jaillisse te ñoom ñaar ñoom ñu war a jaillir nañu génn ñu nekk ci ñoom loolu la ñuy xaar ci ñoom de l' explosivité de la bagarre ba àdduna yëpp kontaan. booy dafa bëre ak Eumeu Sène may pour commencer combat bi ak Moustapha Gueye mu ne ma lii mooy combat parce que lépp a ngi woon ci biir ba ñu déggoo ñaay booy ñaaw bëri bi lu rëy digganteem ak Sa Thiès ñëpp di xalaat ñu woon booy ñaaw am na intelligence tactique boobu am na capacité boobu man leen di def ko suivre parce que boxe le jeu de def balaa muy def bëri kon c'est un combat bu nga xam ne bu tajee il doit y avoir des intérêts te ñoom ñaar ñoo war a wax li tax askan bi yëpp jënd pay li tax askan bi yëpp maa ngi wuti stade ñoom ñaar ñoo ko war a tekkee woon nañu trop nga nga tànn lëkk yi. lëkk yi jërëjëf. jërëjëf maa ngi jërëjëf ñu ñëw. ah non non non non mooy tànn dafa doon waxul loolu de. dafa mel ni tànn dafa mën a yéex dafa bëgg yow nga ñëw. incha allah damay ñëw ma xaar ko. est-ce que dinañu. ah est-ce que dinañu. ah voilà. wala tànn maa ngi ñu baax ko war a xam nga combat bi mu tëdd naa nuyu sama baax a baax teg dégg naa bu baax a dégg naa bu baax waaye nit melu nu mu waxee ni mu defee la dégg naa la li nga wax bu baax a baax waaye yàlla dafa dogal ni man sama papa séeréer la waaye dafa yaay góor bu mu góor la dégg naa la bu baax a baax waaw maa ne combat bi mu yokk mu yokk ak combat moom temps foofu ma ko jaar fële ca man door yàlla doon na ci ndax ñooy champion bu mag bu jugee foofu am fu ma war a dem moom mu nekk bu jugee ak loolu waa fii nekk mu fi naan su ma ay mbokk su ma ay am jàmm lépp topp mu fi naan mu xam nekk mu fi naan moom première ñaar bi bañ toogee fii moom la léegi ñu koy wax répétition la amul solo waxoon naa ko li mu ko wax loolu combat bu bëgg la xam naa lu mu ko xam naa ne combat bu mu yor dinañ xeex dinañ bëri waaye dinañ def jom fulla ak fayda bu suñu borom la ñu incha allah loolu ci bëri la ñu koy mais li ko bëgg moom moom mënu ko ko ko mënu non non nit ku nekk dina ko non yow bu ñu toog koy xaar moom est-ce que xam yaakaar naa ne kii dina def waaye loolu laa wax dina xam dina ko def bu ko defee mënu ko def ko ñu bokk ko wala ngeen daje waaw wala ñu daje mais dañoo ko yóbbu parce que boobu ñëpp balaa ma ñor dama bëgg ñu laale ba ma xam ne laale bon man loolu laa li ma lay wax dafa bëgg ci man. Ah, bien sûr bëgg loolu ci man ma xool. waaw mais dama bëgg li ñuy wax nii nga doon dëgg ci man mu doon dëgg ci man te taxaw naa fii wax naa ko dafa bëgg dëgg ci man. mais taxaw ba moom nañ ñëw li ñuy wax nga doon dëgg ci moom mu ñëw xeexal ñu xeex ñu def. loolu ñaar waa ji boo waral nag nit ñi dina am yow ñaata yi dama bëgg rek kii champion mais bu waxee nii di def moom booy naat si moom mais bu ñëwee moom loolu loolu yaa ngi gis ko man bii nag moom champion la laa mais dama ne chaque jour bu waxee yàlla xam na ne mën naa jour boobu nañ xaar combat ba xam ne cinq heures yi ko ma tëdd ma ca naat bi daal champion la nag ma ca mais loolu la ñu bu ñëwee adversaire bi daal léegi moom lu mu wax mooy jàpp ma li ma wax mooy jàpp ko bu suul ba incha allah ñun daanaka su fekkee vraiment moom xeex ko loolu ci moom lay def ñu ngi xeex bi ci moom lay def saabu ci moom lay def ñu xeex maa yow bëri boo bëggee promoteur baa yi ñu teg taa boo xamante ne dix wala quinze mille maa yow kenn dañuy jàppal ñu xam suñu tànk xeex ci yow lay def def noonu da ngay wax ne da nga gis sama sama waaye loolu dafa ñu toog xam nga bu baax la ngay toog xam naa ko bu yàgg te la ngay toog nag jàppoon na nga doon de balaa muy ñëw ma ma tax yàlla yàlla dogal na réer bi maa ngi lay maa ngi lay xam maa ngi lay ko réer na ci loolu. waaw maa ngi lay xam. réer na ci loolu. waaw muy tàggat naa am na doy. moom champion dafa am lu bëgg man ma am lu bëgg ñoo ko bokk. booy bi ma wax dafa def nii man moom dafa def nii. dama bëgg incha allah fi boobu may mën daal dem ba yeneen champion yéen boobu ak parce que moom laa te noonu laa ñëwee moom bu ñëwee noonu daan xeex dañu bëri amaat nañu kontaan yaakaar waaye moom naa ñu xamoo loolu yaakaar naa ne leer na comme xeex bu nekk dina am bu keroog ah boo xamante ne jàpp noonu ba combat boo xamante ne ah. ndax moom lu ko dëgër rek. maa ngi leen di wax ak fii li ko dëggal rek ay li ko dëggal rek. man xam naa ne borom jom nga borom fulla nga borom jikko dana mën a xeex xam naa loolu da nga ko mën da nga ko mën ba ñu attan ko mën xeex. dinaa def am ñetti façon la. waaye nag boo ko benn ak béykat. wallaay ñun moom la ko def. da béykat waaw ñetti façon la. daanaka mbër boo xam ne ba àgg suuf da nga def jënd. loolu boo xam ne bu amee da koy xaar mu loolu boo xam ne bu amee da ngay daje ak moom. loolu daal la wax naa ko. waaw moom naa ko ci face à face mu nekk nii. bàyyi woo xel te waxaat naa ko. toujours ba incha allah loolu damay bëgg a am boobu damay bëgg a am loolu damay affaire boobu la. mbokk yi lii moo waraloon ñu daje fi tey jii doon waxtaan waxtaanu lamb la ko defee doon waxtaan waxtaanu lamb. di ñaan yàlla yéen ñaari mbër yi ngeen jóg taxaw fii Pape Diouf laaj ni ko jàll waxe ñu ne ñu tàmm ay ci dugg Bismillah borom Amerika Bismillah Kétiop Alaaji Mbay Kétiop sama doom sama Alaaji Mbay sama doom sama saa